mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu dinu seetaan noo ngi fii tey jii ci Daaru Salaam dëkku maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm ci bis bi nga xam ne mooy bisub yeeslu bi di bisub addiye bi nga xam ne ci la ñu dajale addiye yët ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Cheikhul Khadim ñu toog fii nag ci kër sëriñ Mouhamadul Mamoun moom Serigne Modou Rokhaya tey jii di le 7 euh, euh, janvier dëppoo ak bis bi nga xam mooy bisub gaaw sëriñ bi nag suba bi nu xëyee mboolem fu ab bi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñi mën a ñëw ñëpp ñëw nanu ku mënta ñëw it yónnee nga sa addiya sëriñ bi suba ba nëga kilifa yaa ngi fi ñëw di saafu anteeg moom léegi rek la la fi Cheikh Moustapha jógee moom Serigne Abdou di xaritam di wëllëreem ak yeneen kilifa yu fasanti ko am na ci ñu bëri ñoo xam ni bi ñu joxe seen àddiyee nag ba ñu xewlu ba noppi ci la ñu yeewi ko waaye kii nu toogal suñu wet mooy jëwriñ sëriñ Abdou Lahad bokk ci ñi nga xam ni dañoo yore liggéey bi nekk ci wetu sëriñ bi ci taxawaay yu bari ànd koog jëwriñ sëriñ tonto segu ngoom ànd ko ak sëriñ Ousmane Sow ñoom ak jëwriñ sëriñ Elimane mbay mi féete fii ci Daaru Salaam ak daayira tubaab yi Safinatu Salaam ci njiital sëriñ Mbaye Dieye ak mboolem ñi ñu àndal liggéey bi sëñ Jaga Jaw ak ñëpp ak soxna yi waaye xam ngeen ni sëriñ bi ci taxawaayam ci kippaaruk sëriñ Modou Rokhaya kippaaruk sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ni mooy léppam mu koy xoole jëmmi sëriñ Modou Rokhaya sëriñ bi sëriñ Cheikh Anta def ko jëwriñ waaye sëriñ bi jëlaat lépp delloo ko sëriñ Cheikh Anta ci ak taalibi sëriñ Modou Mbacke mii toog sunu wet ñu gën koo xam sëriñ Modou Mbacke Café waajuram ba ñëpp xamoon ko moom ci ëttub sëriñ Gaawaan waaye gis ngeen njabootuk sëriñ bi. muy see Mouhamadou Mamoun ànd ak magam sëriñ moodu Mbacke ànd seen mag jee di sëriñ Cheikh mi taawu sëriñ bi ak sëriñ am ñoom ñëpp. ci seen liggéey nag ak seen taxawaay waajal bisu bi tax na gis ngeen téere bii nga xam ne dañ koo bind bind ko muy jaar jaari sëriñ mu roqee ndax moo sosoon addiyee yi ni am murit toog am at ab sëriñam yëtu ko addiyee wóor kon daan ni lu ma am danaa ko yóbbu lu waaye indi it ma defal la ko ci loolu loolee moo waral bis bi doon bisub addiyee Daaru Salaam waaye bi mu fi bàyyikoo nag sëriñ Cheikh Anta wax ni nañu ko ci ñaanal def ko bisub yeesu loola ñu amee ko ci ndigalul njabootu sëriñ Tuubaa sëriñ Saaliw sëriñ Alaaji Baara ba ci sëñ Sidi Muxtaar ba ci du Mouhamadou Mountakha mii yàlla na fi yàgg te kon daal ni may def mooy wàcce sama kàddu nu jox jëwriñ sëriñ Abdou Lahad Diop mu gën leen a leeral doxinu kër gi ak sëriñ Mouhamadou Mamoun ak digganteem ak taalibe yi ak digganteem ak sëriñ Cheikh Anta mi fi nekkal sëriñ Mor Roqe li waral jataay bi daal mooy nun danoo amul lu dul sëriñ Gaawaan gannaaw bu nu nuyoo sëñ Abo Baraka ñaanal ko mu yàgg ci te wér ñu nuyu bu baax sëñ Cheikh Anta Mbakke ñaanal ko sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Mamoun ak ak njabootu sëñ Modou Rokhaya gépp ak njabootu sëñ Gaawan gépp ndax ñun sunu lépp daaru salaam la waaye nag ki ñu ci boole mooy sëñ Modou Rokhaya sëñ Modou Rokhaya moom nga xam ne jàmbaar ji jàmbaar la woon joo xam ne ñëpp xamu ak njàmbaaram ñun ñu xam ci tuuti bis bii mu defoon ko pour laaj addiya ñun ñi bi ñu xëyee wàccee nañ fi alxuraan fii ci kër gi ñaanal sëñ Modou Rokhaya waaye ñaanal ay jàmbaar yoo xam ne dañoo nekkoon fii ci kër gi muy alaaji tàggu faal moom Baye Mayoro Fall waaye ñu jàng ñu jàng ñu ñaanal fi ku ñuy wax ba Badou Faye Badou fay nekkoon jàmbaar ju mag joo xam dafa nekkoon fii eh, di ko xam ni docteuru Daaru Salaam lañ ko daan wooye mu jël alalam ak léppam di ko def ñu ñaanal ko dajale addi yi sëriñ bi wax ni nañ ci fasaaleel ñooñi te ñaanal leen alxuraan ji loolu def nañ ko fi bi ñu jógee ñu ñaanal sëriñ Seex Anta sunu borom gën ko fee bàyyi yàggal ko fi ak mboolem njabootu suñ gaawan gépp loolu yi moo fi xëy am ni ko sëñ Modou mbay Ndiaye waxee nag mooy bërki démb rek murit yi dañ leen di sant ndam dañ tudd di tudd jëwriñ dañ bu yàlla dogalee bërki démb nu doge ci liggéey bi nga xam ne sëñ Cheikh sëriñ euh, sëriñ Mountakha moom sëñ Basirou moom xaadimu rasul jox na ko liggéey bu rëy mu liggéey ko noog noom ñoo ko ànd keroog bañ tegee xeer wala nu sëriñ bi woo ni nu àndalee nag sëñ jiili nu toog fa ba liggéey ba sotti keroog bi ñu yéen ñëpp gis ngeen ko ci internet yi ñu jël aw fas mu yëkkati ko jox ko ko sante ko ak na mu demee lépp kon loolu ñu ngi ciy jaajëfal bu baax jëwriñ ñi ñu fa nekkaloon muy sëñ jiili ak ñoom sëñ fàllu Gala Silla ak mbokki taalibe yi fa nekk yëpp woon dañ ko taxawu sëriñ bi noonu yi la demee bañ jógee loolu àddi yi ñëw ñu ñëwee ñëw xam ni mësuñu koo ñëwee ci pësteef ak jom ak gën a gëm sëriñ Muudu Maamun sëriñ Muudu Maamun nag day jëmm joo xam ni du laaj kenn te yéene nit ñëpp jàmm ndax ni ñu ko tuddee daal ñun borom xol bu sell mooy sëñ Muudu Maamun xol boo xam ne nii rakk yeeg mag ñi kenn ku ne nangul na la kilifteef ba pare yërëm na la te bëgg na la nun taalib yi loolu lañ xam ci moom wax ci moom nag nun daa doy seere ndax suñu digg ak moom waaye nag yéen ñi nga xam ne yéen a jël si daal ñi nga xam ñu ngi ñaan ci doole Serigne Touba na gën a siy déwén mboolem njabootu Serigne Modou Rokhaya kenn bañ cee manqué ak nun ñi nu fekke ko yàgg koo ñaanal ci barke Serigne Touba noo ngi leen di siyaar bu baax di siyaar suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te def nu ay dongo nun ay dongo rek lan waaye nag ay jëwriñ yu mat jëwriñ te lépp lu ñu yëngu suñ gaawaan rek a tax lépp lu ñu fu ñu mën a toog yëkkati kër gi rek a tax kon ñooñu ñu ngi leen di sant di gërëm di ñaanal ñëpp di ñaanal dongo yi di ñaanal sëriñ si sunu borom defal leen tawfeex ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bis bi day bis boo xam ne murit yëpp waroon nañ ciy roy waa Daaru Salaam ndax bis la boo xam ne bisub yeeslu bisub yeeslu la bis bi tudd waaye lu ko jiitu mag ñi fi nekkoon jaar fi defoon nañ ko ci njiitul sëriñ Mouhamadou Roqaya Mbacke moom sëñ Mour Mamoun moom sëñ Gaawaan bi mu koy mujj a bàyyi euh, addiya yi bi ni li muy euh, làqoo ci suñuy bët mu ngi ko yóbbu woon ci 18 millions. kon yokk am na léegi rek maa ngi wan sëñ Ilimaan Mbay di ko wan liste bi naan ko ginnaaw sëñ Modou Rokhaya 2015 addi ñu ngi ko yóbboon ci 118 millions 2016 ñi ngi ko yóbbu ci 125 millions 2017 ñu ngi ko yóbbu ci 141 millions 2018 ñu ngi ko yóbbu ci 151 551 millions 2019 170 millions deux mille euh, ñu ngi ko yóbbu ci cent quatre-vingt-onze millions deux mille vingt ñu ngi ko yóbbu ci millions bu mujj biir ñu ngi ko yóbbu ci millions. kon yaakaar naa ne loolu lu am solo la ku yokkul yaa wàññi te kenn ku ne xam ne ren jii ñi ngi ñaan suñ borom suñ borom yóbbu ko ci trois ba ci quatre cent millions te yaakaar naa ne tàkkusaan jooju sëñ Tuubaa rek ko am takkal lay million def ci wëlis teg ci albert na ko bu la neexee taal ko suñu yoon nekkatu ci loolu loolu loolu jërëjëf lii daal lañ leen jëlale woon fii ci kër Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké moom Serigne Modou Rokhaya ni ko sëriñ ab Ablaat waxee nag sëriñ Galas Mbacké moom Serigne Modou Rokhaya yépp xam nañu taxawaayam ci kippaaru Cheikh Mouhamadou Mamoun mii nga xam ni ñoo bokk lépp waaye mu jaay lim bokk ak moom lépp jënde ko nag ak taali bi di wut ci moom rek ngërëm ci Serigne Modou Rokhaya mi mi leen Serigne Touba boole ak Cheikh Mamadou Mamoun maam Cheikh Anta waaye Serigne Bassirou moom sëñ Modou Rokhaya wax na ko moom it daa topp rek Cheikh du Mamoun ñu ànd nag topp nag ci Serigne Cheikh Anta xalifa Cheikh Mamadou Mamoun ñii ñaanalaat bu baax Serigne Abo Baraka xalifa Cheikh Mamadou Mamoun ñaana ñaanalaat bu baax a baax itam mboolem jabatug maam Cheikh Anta Mbacke gi yëpp kon mbokk yi siyaar baa ngi noonu addiyee yaa ngi noonu ni ko Serigne Modou waxee léegi ba euh, euh, xolam fees noo ngi ñaan ren jii li ñuy yóbbu yal na ëpp lool li ñu yóbboon daaw te nu teewe ko ay déwén déwén waaye nag di sant bu baax a baax yéen waa presse bi